ndawi étudiants yi libéraux yi nekkee ci dëkk bu sell bi ci Touba doon def démb ab janoo ak taskatu xibaar yi dañ cay fësal ci ay càkkuteef moo di ne ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Wade ji daa war li nga xam ne moom moo di plan B bu PDS bi nga xam ne nii moom la ñu tëraloon moo di jël maître Madické Niang daal di koy def li nga xam ne moom moo di candidat bu PDS loolu ñoom ndaw ñi lee jàpp ne maître Abdoulaye Wade amatul benn yoon boo xam ne ni war na ko utiliser du wàcc ci mbedd mi jël ki nga xam ne mooy maître Madické Niang daal di koy def candidat bi mu jàkkaarloo président Macky di a remporter xam ne moom moo di élection atum 2019. waaw ñu ne Karim Wade xam nañ ne génn nañ ko ci élection yi cour suprême bi nga xam ne moo waroon a àtte nee na mënuma ci dara. léegi ñu ne olof dafa am lu mu wax bu ndox tuuroo an bàq des ñu ne déedéet dañuy rooti Ablaye Wade yàgg a wax ne du ma dox ci kawi néew di dugg biir palais te suñu gis-gis kane ñi nga xam ne ñoo wër Ablaye Wade ba mu créé parti bi ba tey. sos ko muy 1974 ba tey am na ci ñoo xam ne mosuñoo dañ mukk di lëkkaloo ak moom di dox ci li mu bëgg di dox ci li nga xam ne mooy jëmmal démocratie ci dëkk bi ñi ngi ñaan ci ndey mbill gi di Abdoulaye Wade nga xam ne moo yilif lépp ñi ngi koy ñaan élèves ak étudiants libéraux Touba yi li ñu sàkku ak suñu waajur yi yëpp toog mu jëlal ñu plan B. ginnaaw Karim moom ca cëppaandaw bi Macky Sall neen du bokk nañu tànnal Madické Niang res euh, suñu tànn tànneef bii di Madické Niang koy ñaan comité directeur parti bi di ko ñaan membre parti PDS bi yëpp di ko ñaan population Sénégal bi yëpp ndax Karim moo Karim Wade moo nekkoon candidat du peuple donc kon bu ñu choisir Madické Niang dañ koy def comme candidat du peuple mu jàmmaarloog Macky Sall jëlee fi Macky Sall delloowaat réew mi fa mu nekkoon mu doon réew mu ngor ak jom donc tabaxaat démocratie bi kenn ku nekk mu delloo sa àq ak sa yelleef ñu ngi koy ñaan daal Abdoulaye Wade ñun les jeunes libéraux Touba. rax ca dool ñu daal di yokkaat seen i kàddu ne li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum élection yi ci Touba nar na nekk loo xam ne nar a takk suuf la ndax président Macky Sall dafa changé li nga xam ne moom moo di sous préfet bu bees al di ko jëlee fi nga xam ne nii moom moo di ca Matam indi ko ci Touba te kooku amul benn xam ci lu jëm ci wàllum élection yi ak ni muy tëddee fii ci dëkk bu sell bi ci Touba. jafe-jafe yi am ci politique ci dëkk bii di Touba ñun ñëpp ci teg suñu bët élection yi weesu di législative yi rek exemple la ci Macky Sall ñu yaakaar ne dana ci indi saafara saafara si ni mu ko defee mooy mu dem indil ñu ab préfet boo xam ne daa gën a ñaawalati suñu njort changement bi mu changé préfet bi ci jamono ji mu ko changé loolu dalul suñu xel ndax dafa indi préfet bu bees loolu ñu naan pré électoral maanaam waajtaay ay élection nga sensé ab préfet te ku ne xam ne ne préfet mooy saytu wàllum élection ca dëkk ba mu ne dëkk bu toll ne Touba ak euh, procédure électorale bi ni mu complexé ci jamono ji nga sancé ab préfet loolu tey na suñu xel ci njeexitalu kàddu la ña ngay sàkku ci maître Abdoulaye Wade mu daal di wàcc ci terrain bi ànd ak Karim Wade daal di jël ki nga xam ne moom moo di Madické Niang daal di koy teg ci seen kanam ngir mu daal di mën a jàkkaarloo ak mbooleem candidat yi nga xam ne nii fas yéene nañoo dem ci jongante présidentielle yi ci atum 2019 daal di koy mën a gàddu su ko defee droit yi nga xam ne nii xañoon nañ ko Karim Wade yëpp ñu daal di koy mën delloo